xanaa bii kër bunt ba daal ah dégg nga li ngay wax Ismaïla non Ismaïla kër ga la nekkoon fii kër ga këram fii mooy foofu mu ngi daal ah Jéy Jéy mu ngi fii ci moom ak Njaay non yaakaaruma ah non non yaakaaruma ne ndax ñu jéem ko yaakaaruma Jangan yang mengajar. Hey, hey, hey, hey, hey, loolu rek la Modou Lo ci xarañ su mën bëre buy song day dóor buy jënd day dóor waaw tax mu neex bëral loolu tax Modou Lo neex bëral ma ñëw fekk slogan bu bees ku fi ñëw rek wat nan la waaw parce que ñëpp dañoo judduwaat nag dañoo judduwaat ay ay ay lañ dañoo dañoo di ñaan yàlla xama Pikine yëpp génn jàpp ci làmb ji Pikine ñu jàppale seen doom incha allah le 5 parce que c' est le Sénégal qui gagne bu weesoo lépp ambiance am na coono am na lépp dina am mais benn tàkkusaan la lam moo ñu boole ñu ñëpp comprendre nga ñu ñaan yàlla yàlla suñu borom mi am ndam mu defal Ama Baldé ndam lu sedd buy incha allah loolu rek la bàkk bu bees lu bees tàq mooy génn ñëwalaat ma ay pël firdo dañuy ñëw ay bugarabu ay ay ay ay ay tumba ay bilampan patal dal dal bi fidel dal daral dal dal fidel bi bili bi bind bind bind bili ama yooyu ama yooyu bes yooyu faa mu am <laughs> waaw ñu ngi sant yàlla di woo tamit suñu mbokk géwél yi nekk fii ku ci mel ni Pekaay Mbaye ak Xaali mbay Dogo Samba Diarra mais loolu bëgg naa ci bi géey bi du taxawee Pekaay ca coon mi nag moom mooy ñëwaat waaw mooy am parce que Ama Pekaay ñoom ñaar mosuñu jëflante man Alaaji Mbaye maa wax ak yow. jéem nee na rafet wala non xaaral ma wax la avant Pekaay ñoom ñaar mosuñu jëflante man maa doon jëflante Pekaay. jëflante ak Pekaay. waaw man maa doon 2009 2008 2007 maa doon defar sama soutien dem jox ko ay bonne volonté ñu jàppale ñu dara boobu gisuñu kenn di doog a débuté ci làmb maay wut sama 75000 wala mu sama sama 100000 jox Pekaay 50000 mu dem foor jox jox Ama 50000 mu dem voyage yi. kon yaa ngi Amadou tey ma gis ma judd ko gis. parce que polémique bi xawoon na jaaxal man la ah bu bëree làmb ji ba pare ba jël roi des arènes daf may décorer man ma bàyyi làmb man di gërëm ñëpp képp koo xam na nga koy jàppale di jiital si nuyoo bi sama nijaay Alioune Diaw ñaaw ba États-Unis di gërëm Moukhassi. ay gërëm mën leen a kenn du moom Moukhassi c'est mon ami. gauche droite l'international waxaloo def yaa waaw mais nga teraanga rek la ah, te euh, waa Fulaadu yëpp dañuy ñëw ci làmb ji làmb ji nee naa la doo gis Ama Falaay Baldé ngay gis. kon mën na noonu jot li ñu jot mën naa am mooy takke fii dox dem arène nationale. non incha allah lépp mën a am surprise bu ne mën naa am daw bay saat mën naa am dox bay saat mën naa am dugg saret mën naa am dugg wotiir mën naa am lépp mën naa am lu am bu mu leen bett parce que làmb la aar lañu wax làmb xeex bi ak bëri bi une minute la ci aar bi moo ci nekk ay 6 heures de temps 7 heures de temps. kon garaaw quoi. pin pen pen pam pam.